François Hollande dem jàkkaarloog ay journaliste ci laaj ak tontu ci affaire terrorisme ak attentat ndekete président bu nekk da ngay dégg làkk bi nga xam ne fa la sa ambassadeur dégg Macky Sall ñëpp umpale ñu dégg na français dégg na anglais am na ku ne ma dégg na ko mu wax chinois François Hollande dégg na français dégg na olof ndax ay papam fi nañ nekkoon ci Sénégal ci Saint-Louis jàngee na 2 ans Sénégal trois ans bi mu am 14 euh, ans for na tuuti ci olof ndar-ndar la woon moom François Hollande di tontu ay question ñu seeti François Hollande puis di ko may Ami Diack nekk ci telu bees de la part de Abdou Fagué moo ko may kon mbokk yi fi ñuy dem rek mooy bëggal leen yéen ñi nga xam ne nag yéen ñu setaan Pikine Géejuwaay Parcelles Assainies fépp ci biir réew mi François Hollande jàkkaarloog journaliste sénégalais yi ci laaj ak tontu jëm ci li nga xam ne moom mooy attentat terrorisme François Hollande ca buntu aéroport bu Dakar Ndiaye

parce que vraiment le Sénégal a soutenu euh, la France depuis le problème euh, euh ça fait longtemps mais euh, je suis euh, là pour euh, juste amener soutien de de de de de Macky Sall pour lui dire que vraiment c'est le seul Africain qui a vraiment montré qu'il est contre les terroristes. Je suis venu juste pour parler avec les journalistes et, et je parle parle wolof et je parle français <laughs> parce que je comprends wolof et, et Sénégal est un pays vraiment que j'adore et j, j, dem na ceebu jeen merci je tends vos questions et j'ai la réponse. bonjour monsieur le président. de la Télé Futur oui. Euh, monsieur le président. Avant tout, euh, nous vous disons bienvenue au Sénégal mmh. et euh, nous vivons condoléances mhm, à propos de ce qui s'est passé la fois euh, en France. Mais, Monsieur le Président, oui? quelle, quelle décision t'as prise à propos de ce qui s'est passé là-bas en des attentats là? Euh, la question c'est en français en wolof. oui, en français je vais répondre en wolof la question en wolof. bo la question wolof c'est que euh, monsieur le président euh, dañu bëggoon a xam yan décision nga jël ci lii la daloon ci sa réew fan yee passé ci problème yi attentat yi Monsieur le Président. Oui, d'accord, je réponds en français. Euh, je pense que le Sénégal est un pays qui euh, vraiment qui m'a aidé. Euh, euh, euh avant-hier, j'étais là, euh, mais pas officiellement, j'étais dans un dans un dans, dans un lieu qui est vraiment secret. J'étais à Wakangona, Wakangona et, et à, à Toubatoul, juste pour me protéger parce que on m'a dit que les Sénégalais ont des grégués qui vous protègent contre les bombes et les les les les les, les, les couteaux. On et a les question, on a l'impression que vous connaissez bien le Sénégal, monsieur oui, le Président. Oui, je connais le Sénégal. Euh, donc, euh, euh donc euh, c'est pour cela que je suis venu euh, nuitamment la nuit et repartir. Aujourd'hui, je suis venu officiellement euh, parce que je veux montrer que au marabout qui ce qu'il m'avait dit, je l'ai vu. D'accord. maa ngi tontu pour wax Sénégal ci jàppale bi ñu ma jàppale ci affaire au terrorisme bi di gërëm Macky Sall parce que ñëw naa fi alxames ci asafola altine ci guddi dëkk bu ñu wax Toubatoul pour toul ak euh, toul pour euh, paka euh, pistolet bombe ak lacrymogène paraît-il que Sénégal ay nañ ci ba buñ la ko sànni du la dal donc maa ngi wax sëriñ yi nekk Sénégal ñu dolli ñaan ñu dolli ñaan ci kattanu Yàlla parce que tamit après tout en croit en Dieu ñu ngi leen di sant di gërëm pour laaj boobu votre deuxième question vous plaît s'il vous Bonjour, euh, monsieur Hollande. Oui. Moi, c'est Jamil Ba. Oui. De Walfadjri. Mm. Euh, Walfadjri Walfadjri. C'est un verset coran euh, bon, c'est une télévision. Ah oui, qui, quand on parle de Walfadjri, je pense que c'est les Espagnols. il y, a, une verset cor euh, coranique qui s'appelle Walfadjri. Ah oh, ok. mais c'est toujours euh, organe de presse. Ok, d'accord. Euh, ma, première question. Oui. c'est vous demander que monsieur Hollande, on a vu que vous faites des tournées un peu partout dans le monde. Oui. Pour vous chercher des alliés pour lutter contre le terrorisme. Oui, c'est vrai. Euh, ma question s'adresse directement à vous. Oui. La question qu'on se pose tous c'est est-ce que vous n'avez pas peur des terroristes? Euh, en wolof ok. Euh, monsieur François Hollande. oui euh, ñi ngi lay laaj ne la boobu ba léegi yaa ngi xeex wàllu terrorisme maanaam dëkku France. oui gis ne yaa ngi def ay tournée ci dëkk yu bëri di wut ñu la jàppale. ñu lay laaj ndax dëgg dëgg dëgg monsieur François Hollande est nga terroriste yi. D'accord, euh, je suis je, je réponds les questions en français et en wolof. Euh, je suis là pour chercher des euh, partenaires et le Sénégal est le premier partenaire en Afrique qui est venu pour me soutenir et euh, le président Macky Sall m'a amené dans un euh, village qui s'appelle Toubatoul et Wakanguna. J'ai trouvé un marabout qui s'appelle Karamoko et Bundukh. Euh, Boundour m'a donné des, des galettes qui, euh, qui va me protéger moi personnellement et euh, mon gouvernement euh, ma tontu la ci euh, wolof euh, maa ngi sant une fois encore que partenaires yi ma jàppale ci affaire au terrorisme Sénégal Mali Maroc Cameroun qui sont des présidents yu am colère donc awma dara lu ma ragal ci sama àddina lu dul yàlla suñu borom Euh, je pense que que aujourd'hui la France est, là pour aujourd'hui pour montrer que euh, euh, nous sommes euh, un pays ouvert parce qu'il y a plus de 2 millions de qui sont à Paris euh, en Europe et donc euh, il y a il y a il y des fils sénégalais qui sont là-bas des, filles am na jigéen ak góor yu nekk France bëri nañu ci toll ci millions yu tegal kon doomu France yi nekk Sénégal yi nekk France ce sont des Français donc man awma lu may ragal awma parce que Macky Sall am na fu ma yóbbu foo xam ne euh, nee nañ ma bu soobee yàlla bul daw bul tiit bul am dara loo xot xot yi euh, euh, jàmbaar daawul dafa uti doole je pense que mystiquement le Sénégal peut me soutenir sur le plan mystique pour je suis je serai pas un jour bombardé par des terroristes que je connais pas et j'ai peur vraiment de de de de d'être attentat par des gens que je connais pas mais mais man duma tapette parce que mon grand arrière-grand-père il s'appelle Gérard euh, Duchon Hollande euh, c'est le premier Français qui a osé euh, aborder Hitler et face à face il lui a dit que euh, la France veut la liberté de euh, l'indépendance de la France man duma tapette duñu daw amma kenn ku ma ragal bi ñu rayee ay téeméeru Français le lendemain dama envoyé ay bombes directement dans les pays c'est quoi J'ai peur des tam-tams. écoutez, écoutez, j'entends des Qu'est-ce qu'il y a? J'entends des le tam-tam, j'ai peur. non les bruits ça me fait peur. Allez-y, je, vous êtes contents cela vous chantez. Mais je comprends pas, vous, vous chantez en wolof. Vous chantez en wolof, c'est juste euh, vous dites que quoi? Ah, je comprends, ça c'est sûr, je comprends. Mais quand vous tapez le tam-tam, j'entends quelque chose, il faut taper doucement parce que euh, les terroristes, ils sont partout. Et les batteurs de tam-tam aussi, c'est des terroristes. Il François est Oui. oui yaay oui oui yaay oui oui oui yaay oui oui oui yaay oui d'accord c'est juste pour vous montrer que j'ai pas du ma ragal te kontaan naa ci teeru bi ngeen ma teeru et vous voyez que j'ai pas peur man du ma président tapette parce que la Euh, s'il vous plaît notre dernière question on dirait que apparemment le Sénégal est un pays calme mais est-ce que vous prévu euh, vous avez prévu de partir dans un pays comme la Syrie, le Nigeria, le Mali, là où il fait vraiment chaud, et on dirait que c'est là le bastion des terroristes. Euh, je, vais te je vais te répondre en français. Euh, je dis que j'ai pas peur. parce que Macky Sall m'a emmené dans un village qui s'appelle Toubatoul, Wakunguna et Pout. J'ai vu un marabout qui s'appelle Karamoko qui m'a garanti que. Qu'est-ce que ça veut dire? venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Venez. Wow. Sakadia, Makadia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Dieu est grand. Barki Seydina Mohamed. Barki Seydina Mohamed. Barki Seydina Mohamed. Barki Seydina Mohamed. Yàlla kenn la Mohamed kenn la. Barki Seydina Mohamed. Yàlla kenn la Mohamed kenn la. Barki Seydina Mohamed. Allahu Akbar. Ya Latif. yaa latif allahu akbar allahu akbar yaa latif yàlla kenn la Seydina Mohamed yàlla kenn la allahu akbar allahu akbar allahu akbar non soyez pas peur je me tapette allahu akbar allahu akbar barke Seydina Mohamed allahu akbar venez aux prières d'Allah allahu akbar Dieu est puissant Seydina Mohamed Seydina Mohamed allahu akbar Seydina Mohamed ya latif ya latif way samane allahu akbar allahu akbar Dieu est bon ya latif Seydina Mohamed Seydina Mohamed tudd leen yàlla tudd leen Seydina Mohamed tudd leen way samane Seydina Mohamed way way